si ci euh, xamné société bi mu ngi nek crise deug deug fi ko meuna naté moy li nga wax affaire xalé yi suñ ñëwee ba nga xamné xalé amul doole amul dara mhm. nga ko ou bien di ko seetaan ba mu dee négligence yoyu moy sa société dafa am problème alors réaction gouvernement d'accord c'est bien de ngay dem jaale ji non mais le problème c'est pas dem jaale parce que ça revient toujours oui après joxe lii non non tu tu tu rupture aussi d'une carte ci gouvernement bi <laughs> bu ñu xaat ci gouvernement bi xale yi war nañ ci war nañu un grand débat national ba nga xam taxaw un débat national nan la nuit aaree xale Nous <laughs> mu commencer par le quartier nous mobiliser mosquée imam yi di ci wax

mais ne dañ mhm. mhm. volonté Bob, peut-être que ndànk-ndànk lay mais c'est volonté politique volonté politique c'est pas d'un dialogue. je regrette <laughs> ci le c'est une culture la ak mhm. mais après quand yi day nañu jaale nañ bon jeex <laughs> donc pour moi maa ngi acte très fort maintenant pour revenir niger ngay Niger lañu ni Niger dafa en guerre ni ay réfugié lañu jóge seen parce que seen dëkk bon ni ñi avec lañu et mhm. Niger Mali Burkina dañ déstabiliser suñu la déstabiliser sur le plan de la sécurité. Niger, mhm. déstabilisé déstabiliser sur le plan social. la violence de guerre des éclatés ou, des éclatés famille yi. Mhm. tu as fi sax da ngay gis ay xalé and ak ay parents bon peut-être. mais gouvernement yi war nañ def est-ce que lu wuñ len on a souvent dañ koy wax né dañuy luyé yi. un gouvernement responsable de voir des def enquête même quand yi suñ ñu def leen ñi su ñu xamné ay réfugiés nañ ñu def leen ci ay centre mais duñ leen bàyyi ci mbedd mi duñ leen ci mbedd mi gis fan interrogation bi faral di ñëw sama xel moy nu ñuy ci anam la ñuy duggé ci réew mi fu ñuy jaar nu ñuy accès ci non xam nga euh, a la libre circulation des personnes et des biens mm-hmm mais même si ñu bokk libre liberté ak yooyu soo xale dañ a fooy Sénégal ñu laaj est-ce que parents. Mm-hmm. Mauritanie bii man mi lay wax sa en bon sénégalais may dem vacances Mauritanie yóbbaale doom <laughs> ay lañ mais si ma ñëwee foofu dañ ma laaj ana ma lañ papa ak non malgré tout il faut me prouver mais ce qui est normal. Mes filles, da ngay ñëw dugg c'est normal liberté sur nous nous sommes des Africains sommes on Sénégal Sénégalais, tere Guinée yi dugg fii Sénégal ils sont partout. Soit demain, Népal sax y a des Sénégalais donc nous, sommes te Sénégalais nous non. mais état bu organiser... de foires assurer la sécurité des enfants qu'ils soit sénégalais ou bien nous ne sommes pas sénégalais vous bu dugg ci territoire sénégalais. Mhm. war nañ identifier les bobu war nañ identifier ku mu àndal. Mhm. ndax c'est pas un trafiquant d'êtres humains un trafiquant d'enfants du deug mhm. même ñi nga xamné dañuy joggé ci biir di indi xale yi fi war nañ leen xool fan lañ jëli xale yi.